cuub tàccu leen ko baax a baax tàccu leen déggu ma dara eh, tàccu leen waay tàccu leen tàccu la si kaw ci mobilisation bi ñu gis fii tey ci Alieu di ko féliciter ci liggéey bi muy def ñëw nanu gis nanu dégg nañu it di ko xamal ne fi mu teg tànkam foofu la na accélérer accélérer la cadence moom daaj ñoo ngi koy jaajëfal bu baax di ko xamal ne ñun waa COJER national ak ñi nga xamante ne ñoo ma teewal fii ci Touba lépp ngir dooleel ki nga xamante ne mooy le président Macky Sall moom la ñu liggéeyal moom la ñuy jàppale ngir élection yi di ñëw mu am une majorité forte à l'Assemblée nationale bu amee majorité forte à l'Assemblée nationale mu mën a eggali chantier yi nga xamante ne door na ko ci mim réew chantier yi nga xamante ne tàmble na ko fii ci Touba Mbacké fii ci Alieu ñoo ngi leen di wax yéen ndaw ñi à travers la COJER ñoo ngi nuyu toute la COJER de Touba et de Mbacké ah coow li coow li gagné élection yi di ñëw la moo tax nag man awma frontière Linguère la jóge démb ci meeting laa fa jóge fële ca Afe Jolof ma ne tey sama sœur sama xarit sama camarade de parti moo xewle di soxna Ami Mbàkke foog ma ñëw jaajëfal ko ci liggéey bi mais également xamal ko ne ñoo ngi ci ginnaawam ñoo ngi ci kanawam pour que liggéey bi muy def mu gën ko réussir amuñu ci frontière moo tax ñu ñëw ba fii jàppale ko ci liggéey bi jaajëfal ko félicité ko ci bii mobilisation parce que nag wax dëgg yàlla gis naa fi engagement parce que kii bu ñorul woon leen du ngeen fi toog ba heure bi suñu maam yàlla mi sànq ba léegi moo ngi taw fum mu toll ni sax daa xiinaat wante yéen a ngi toog ngir jëmm ji donc maa ngi leen koy féliciter bu baax yéen itam di rafetlu seen taxawaay ci ginnaawam di leen xamal ne bu ngeen bëggee soxna Ami mi élection yi di ñëw da ngeen di dem voté ji le 31 juillet 2022 ngeen jox ko majorité fii ci Touba bu ko defee mu continuer di leen defalal ay projet di leen taxawu pour que effectivement seen toogaay fii ci Touba ak seeni projet yëpp mu mën ko réussir. en mu gudd mu gàtt. félicitation la kàddu jaajëfal la yi nga xamante ne bëggoon naa ko yëkkati fii en direction de notre sœur soxna Amy Mbacké di DAGE du ministère de l'emploi di leen xamal ne ñëw naa fi aussi ak délégation bu mag a mag jëmmam bi moo ko waral suñu sœur la suñu lépp la suñu xarit la te liggéeyam wax dëgg yàlla doy nañu moo tax ñu ñëw fi tey sant naa leen bu baax. tey nag ñu organiser journée bu mag muy sargal soxna Amy Mbacké muy jigéen ju jàmbaar ji ci kaw ñi ngi sargal nag tey ku jëra sargal ñi ngi sargal kuy liggéeyal président Macky sàll ñi ngi sargal kuy liggéey ngi kuy xëy ci njariñu jigéen ñi ñi ngi sargal kuy xëy ngir njaboot gi ñi ngi sargal kii nga xam ne nii boo ko séenee muy dem bu laajte ci soxlay xale yu jigéen rek la nekk ñi ngi sargal tey koo xam ne ni mi ku am yërmande la ñi ngi sargal ku yàgg taxawu njaboot gi ku yàgg taxawu jigéen ñi ku taxawu ay mbokkam taxawu famiyam taxawu néew ji doole yi kon defe naa képp ku ñuy sargal ci àdduna rek képp ku ñuy sargal rek soxna Amy Mbacké mii moo ci war a jiitu ndax liggéey ne ko nag ku gis lii xam ne du tricherie ku gis lii xam ne du gis leen ma ndax soo ba léegi depuis 3 heures jigéen ñaa ngi toog ci naaj bi muy taw seen kaw ñu toog ne duñ dem nañ taw te ba tooy wala ñu lab waaye soxna am Mbàkke jaral na leen ko kon jigéen ñi tàccu leen seen bopp lii yëpp leen la tàccu leen seen bopp tàccu leen day bareem coordinatrice tàccu leen kon ñu leen di ñaanal ñu leen di dagaan di leen wax ne képp koo xam ne nii mi ngi root te bu rootee ci seen daa la koy sotti war ngeen a ñaanal kook fa muy roote bañ sakk teen ba bañ a sakk teen bi muy roote fan la mooy ci teenu son excellence le président Macky Sall kon teen boobu votel leen liste baron bees ngir soxna Ami Mbàkke ndax su ngeen ko voteelee soxna Ami Mbàkke ndombaam dina gën a kawe te ndombaam yokkoo yéen seen dund dina changé seen nekkin dina changé seen nekkini doom dina changé ndax kuy raam di la bokk su amee oto dina la ci dugal kon waa réseau bi waa réseau bi nga xam ne nii mi ngi composé de cent groupement et poussière kenn mënu ko lim ngeen nekk ci kanam wetu soxna Ami Mbàkke nag depuis 2009 ba léegi di ko gunge ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale soxna Ami gën koo jàppale bañ a arrêté te politique ku yàkkamti bokkoo politique ku yàkkamti bokkoo ngeen jàpp xëcc bu dangu rek dina dikk lim jot ama amagu su néew mi koy bokk ak yéen kon ñi ngi ñaan son excellence président Macky Sall mu te tega joxal ñu ko doom ba tànk bu kawee kawee kawe laaju ñu ko benn ministre mais ministre bu mu ko jox des directeur général na ko def wala ministre wala premier ministre dara jomb ko pourquoi pas président du Sénégal de la République du Sénégal war na koo a nekk ndax jàmbaar la xeexkat la jàmbaar la. ñëw fii ak ñi ma àndal muy la zone 3 de Darou Khoudoss mën a waxaale zone yi nga xam ne ñooy appareil politique président Macky sal ci dëkk bi yëpp soxna Ami mi nekk ci liste bi. Euh, may nuyu nag ñépp ñi ma fi fekk rawatina jigéen ñi ndax man jigéen ñi laa faral looloo tax lu jigéen di def suñ ma ko suñ ma ko waxee ma dagg samay itte am naa yeneen activité ñu may xaar waaye dama ne naa ñëw ba sama sœur sama sœur gis ay invité am gis lii mooy liggéey bi di wax ne nag wax waa Touba waa Touba suñuy mbokk suñuy sëriñ suñuy baay suñuy yaay suñuy maam suñuy jarbaat suñuy rak ah bii nag victoire bi ma ngi xeeñ defe naa gaay gaay yeneen yi moom duñ fi am dara bi yoon ku ñëw Alieu xam nga ne fii ami Mbàkke noyel na ko boo demee Daaru Xudoos nga xam ne moorlu ak ñim àndal noyel nañ ko kon waa Touba bi yoon nañ am fulla ak fayda ba le 31 juillet ñu watee la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax lan président Macky Sall limu def ci réew mi yëpp rawatina limu def fii ci dëkk bi defal ko sëñ Mountakha Mbacké suñu yaakaar tey ëllëg yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak weer président liggéey lu bare bare bare bare ci liggéey kon nag ñu ngi sant mbooloo mi yëpp di wax leen rek nañ garder sérénité bi ba le 31 juillet le matin ñëpp jël seen i carte dem sa ci centre de vote yi wateel massivement la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar maa ngi sant bu baax. maa ngi leen bi may egsi dama jooy ba xaw tuut ñu yàq xew bi parce que dama ne duma leen bàyyi muy taw ma toog sama kër ma jaar ci taw bi ñëw fekk leen ngeen toog ne man ngeen doon xaar kon su ma ñëwul woon lambaay dina ñaaw kon nag maa ngi jaajëfal ñëpp asamaan si neexul li fi matoon a def def nañ ko li fi matoon a wax wax nañ ko lenn rek laa leen di dolliwaat fii ngeen toog xaar taw bi ndax sama jëmm matérialiser leen ma ko ci bésu élection yi ngeen voteel yéen ñëpp suñu liste boobu nga xamante ne bi mooy la grande coalition di Benno Bokk Yaakaar ni ko ndey Marème waxe léegi fa ñuy roote bëgg nañ buñ fa demee fekk fa dara ñun nag ñu ngi roote ci teeni président Macky Sall kon nag jàppale leen ñu gërëm naa mbokk gërëm xarit gërëm sama fami ci Serigne Galas mi jël kàddu gi ma jox ko ko mu dellool ma ko ñi ma bokkal ñëpp mais gërëm naa sama xarit yi jóge dakaar gërëm naa sama mbokk yi nga xamante ni bii bàyyi nañ seeni ite ñëw toog ci sama wet soxna maam say bu Serigne Cheikh say ñi ma bokkal kër Serigne Touba ñëpp sama yaay soxna Ayda Gaye su ma ko waxee wax naa sama yaay yi nekk ci ñëpp damay bañ a lim du ma matal walla may juum Alien nag dañ ma adopté ki doon wax léegi mooy le coordonnateur le président du collectif des délégués de quartier loolu nag am na lu mu firndeel ñëpp ci ginnaawam nee nañu waaw ci li nga xamante ni bi moom la ñuy liggéeyal le président Macky Sall mais ci benn Bokk Yaakaar bi kon nag ñu ngi leen di jox rendez-vous balaa yàgg muy le 31 juillet incha allah ñu gagné élection yi ci jàmm ak salaam suba ak ginnaaw suba nag am nañ fi ay consultation gratuite ku ñëw ñu xoolal la sa yaram doo fay dara am nañ 40 médecins yoo xam ne Dakar la ñu jóge ak toutes les spécialités daañu fi xarafal juróom fukki xale tamit loolu yëpp nag liñ si jublu mooy askan bi di ànd ak ñun li ñu amakum néew ñu koy bokk ak ñoom ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant guddi na asamaan si neexul kontaan daal mënta a weesu kontaan kontaan naa bu baax a baax a baax di gërëm sama doom yi di gërëm saf bi nga xamante ne bi xamuñu guddi xamuñu bëccëg xamuñu naaj ndax sama jëmm bugguma lim réseau bi yépp commencé ci ndey Marème Diop at galas mu yóbbaale ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen wax incha allah ba le 31 juillet. amatuñ ci lu ñuy xalaat ci élection yi parce que fi mu nekk nii ñun defe naa ne dañ doon wax ne su doon suba la yi pare nañ. une semaine ak deux semaine la ñu yemale président Macky Sall bilan lañ koy défendre lii fi daje ci mbooloo muy taw ci seen kaw ñu toog mun lañ ko def ci bilan président Macky parce que li ñu defal askan bi ba ñu yend fii ci président Macky la jógee kon lool dugg na ci bilan woo kooku opposant nekk ci rôle am na ut si ñun ñu ngi ut nañ xam au 31 juillet kan lay élection yi sénégalais yi àndal. gàccaal gàcce nga laa ma soxna Amy Mbacké man dañ tagg du ma tagg kenn waaye kii nag wax dëgg yàlla dama bëgg ngeen ñaanal ko yàlla lafal ko cat ba pare. ndaxte lépp li nga xam ne développement ci jigéeni Touba ak ndawi Touba. muy formation. muy yokk seen xam-xam ci lépp. soxna Amy Mbacké moo ñu def ci loolu. kon ba président Macky Sall dafa xam dafa war a xam ne cette grande dame ñu ngi koy liggéey fii ci dëkk bi. waaw waaye lan la nag buñ gañee ku yëkkati sa loxo naan nañ la fal ministre wala DG ma damm ko ma sànni. man ragaluma ci li ma wax dama ne. ndax takku njiit yi moo kon ba président Macky Sall lancé nañ ko appel élection yi tey incha allahu rabi danga ko gagné ndax effort écart bi ñu amoon mooy de 1000 voix la da ngeen gagné jël Amy Mbacké li ma ko wax nee naa kon boo nekkee ñun ci sama assemblée nationale boo liggéeyul dama lay attaqué du ñoom ñu ko yóbbu Touba parce que Touba mooy ñoom ñaanal fi nga jëm yaa nga fi yiw yaa nga jëm